من شر الشيطان الرجيم من همده ونفخه وسحره ولمسه بسم الله وسئل الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله mbokk jullit ñi mbokk réew mi mbokk bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu borom yàlla mu boole ñu sàmm defal ñu tawfiq àdduna ak alaaxira di leen dalal ci seen émission bu bees bi nga xam ne euh, moo ngi jàll mercredi bu jot bu soobee borom bi tabaraka wa ñu ci ànd ak IM euh, télé di télé boo xamante ne nii moo ngi sancu fii ci Kër Masaar noo ngi ñaanal ñi liggéey ci télé be technicien yaag coordinateur yaag borom télé baak ñëpp yal na yàlla subhaanahu wa taala defal leen tawfiq ci liggéey bu am solo bi yi nga xam ne noo ngi koy liggéey ngir luy jëmale réew mi kanam ak wone mbir yoo xamante ne nii dina participer ci li baaxal réew mi émission bi nag ki leen ki nekk ci kàddu gi ngeen koy gis muy ki koy def muy oustaz Ibrahim Gueye oustaz Ibrahim Gueye di directeur centre Ruqiya bi nga xamante ne nii moom moo basé wu Kër Massar boobaak léegi am na huit ans centre bi mu ngi Kër Massar amna 8 ans lu tolloo 4000 ba 5000 ci ay patients dañ fi jaar di faju dañ fi jaar ñu leen di régler seen ay problème ñuy dem alhamdullilah yalla di ci def tawfiq centre bi nak euh, mo ngi nekké ci côté casbah Kër Massar bo jëlé calando ci station Kër Massar bi euh, rombo pharmacie Logo wacc première pompe boo laajte juma ibadu yi dañ la koy daldi won côté yo la nekké centre bi ana lu muy leggey manam lan lañ fi def liñ fi def moy dañuy fajj fajj bu depo alcorane ak sunna fajj bo xamné méthode pratique méthode prophétique bi nga xamné mom la yonnati bi alayhi salatu doon def lolou lañ fi exercer muy lu tuddu ar ruqiyata shar'iyya muy la ruqya ruqya nak lu yàgg la depuis jamono yonnati bi alayhi salatu wasalaam yonnati moko liggéey di ci faj ay nit yu am problème jinne rab seytaane wala ay njabar koo xam dañ koo liggéey wala koo xam ne cat da koo jàpp wala koo xam ne dafa amee lu ñuy tudd ay blocage wala koo xam ne dafay gént wala koo xam ne feebar da koo dal lu ñuy tudd état santé anormal maanaam yow da yëg ne da tawat yaa ngi dem hôpital yaa ngi dem fu ne yaa ngi fay dem yaa ngi pikiiru yaa ngi naan ay garab waaye da ngay gis ne loolu amul effet ci yow maanaam résultat yi joxewul bu ko defee da ngay ñëw fii ñu consulter la xool lan moo sabab loolu ndax njabar mën na koo def seytaane mën na koo def rab mën na koo def jinne mën na koo def ak leneen ak leneen ak leneen donc nag bi ñu demee ba gis ne wax dëgg ak yàlla euh, docteur yi soo fa demee dañ la naan dellul ci fajum nit ku ñuul te fajum nit ku ñuul mën naa nekk lu ne mën naa nekk xar fa fuufa mën naa nekk lu nekk waaye dañoo gis ne loolu yàgg na lool ci réew mi te xëy na résultat ya ak depp ak financement bu am doole bi ci nit ñi di def taxul mu joxe résultat bi mu war a joxe. ci la njëkk ni rek ci biir lislaam am na méthode santé maanaam am na méthode bu ñu mën a sukkandiku faj ci biir lislaam faj boo xam ne dafay basé wu sur le Coran donc loolu ci lañ ko jàng def ci formation so loolu jàgg na depuis 2008. alhamdulilah ci lañ implanté ay centre du Kër Massar kese mais am na yeneen i centre yoo xam ne noo ngi ci biir réew mi ak ci région yi mais ñun noo ngi basé wu Kër Massar lépp loo xamante ne nii dañ koy liggéey fii dafay jëm ci nit ki nga xam ne dafa feebar amee li nga xamante ne nii moom mooy seytaane jàpp ko seytaane ni muy jàppee doomu aadama xam naa loolu ab émission spéciale lay doon waaye dañ koy tënk liñ ci mën a tënk mooy doomu aadama léegi-léegi jinne day jaxasoo ak ñoom moom xam ngeen ne jinne yi léegi dañoo féttéer lool ci kaw doomu aadama yi boo demee ci école yi am na lu ñu fay tudde méthode benn euh, euh, maanaam lu ñu fay tudde jinne may mun a yaay deg xale yu jigen yu bare bare senjangui jàng yi na yu bare bari seen jàng na ndax ndax phénomène jinne may mëna bobu lolu mu moy lan luñ wara xam la aussi faru rab moy lan luñ wara xam la cioro rab moy lan luñ wara xam la seytaane nak lay sey ak nit nak lay ak doomu adama yoy yépp ay mbir la yo xam su ngeen topé émission bi nga xamné mo ngi am ci am télé ak mercredi bu jot dinañ leen leeral film fantien le lol chat aussi mbokk yi xam ngeen ne lu sonal doomu adama yi la cat te nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ëpp ci liy dee ci sama xeet ginnaaw ndogalu yàlla cat moo leen di rey est-ce que dégg ngeen wax jooju médecins yi la plupart dañuy def ay sondage di naan liy dee ci feebar bii di coronavirus nangam la liy dee ci feebar bii di cancer nangam la ah muy ay technique ay chiffres yoo xam ne ñoom seen xam-xam may na leen ko waaye déglu li yonent bi wax yonent bi nee na ëpp ci liy dee ci xeet wi maanaam doomi aadama yi li ëpp ci liy sabab seenu dee seenu faatu yonent bi nee na mooy cat mbokk yi cat mooy lan nu muy manifesté woo ci yan organe la cat di dégagé woo loolu lépp lu ñu war a xam la su ngeen toppee émission bi di am euh, mercredi bu jot ci télé bi di ngeen ci am lu leer bu soobee borom waaye aussi beneen bi ci des mooy njabar njabar mbokk yi géeju ndaayaan la nekkul ci continent africain bi ku xamul lan mooy njabar muy lu ñu tudde la sorcellerie wala magie dégg nga ay nit di ci liggéey ay nit di ko defante damay faral di wax ne Europe Europe boo fa demee nga am nit ki neexu la nit ki soxore la neexu la da dóor balub fetal nga faatu mais Afrique bu nit ki neexul dañuy dem ci njabarkat yi yóbbu la ci njabarkat yi da ngay nekk sa liggéey jotoo kenn dara di doxal di avancé waaye nit ki neexoo ko maanaam yéene li nga nekk mu yóbbu la ci njabarkat yi njabaru man gis naa lu dul jeex ci ay doomi aadama ci ay journaliste ci ay directeur société ci ay ministre ay député ay médecin ay nit ñoo xam ñoy yor sen propre entreprise di doxal wallahi ñu liggéey leen mu yaq ay butiqué gis na ko ci luddul jeex te njabar amna luy tollok 6066 porte bi ci gëna yomb moy tak xala njabar gi gëna yomb moy tak xala moy nga tak soxna ñu njabar la nga impuissance do mëna sey ak mom loolu mo loolu mo fi ma tok ni sama na ko def loolu mo gëna yomb ci njabar légui lolé lepp nak lan mooy njabar nan lay manifesté woo ku mu dal noo koy xamee mais aussi saafara ko lu yomb yomb yomb la nekkul loo xamante ne nii lu jafe la bu ci yàlla àndee loolu lépp ay mbir la yoo xam ne donc lu ñu war a xamle la incha allahu taala bu ngeen toppee émission bii di am lii nag jotaay bi da annonce la woon espèce de genre annonce la boo xam ne dañ koy def di leen yëgal ne bu soobee suñu borom tabaraka wa taala di ngeen am mercredi bu jot benn rubrique bu tudd pajum sunna ah ak ngeen ci ànd ak oustaz ibrahim gueye ci jàppandalu em télé ak suñu technicien bi nga xamante ni mooy ànd ak ñun ci lii ñoo ngi ñaanal borom ñoo ngi koy ñaanal di ñaanal mboolem aduna bi suñu borom tabaraka wa taala defal leen tawfiq loolu lañ bëggoon a ñëw tey di leen jox dig daje ba ajjuma ba euh, mercredi bii di ñëw insha allahu taala ñoo ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi ñu partager ko te abonné aussi tamit

am bagaay ci ay problème dañ koy waral kon solution bi mooy lan fan la nekk li ma ciy tënk mooy nañu dellu ci diine foofu la solution bi gën a nekkee kon bu ngeen ñu toppee ci li ñu tudd fi yëpp dinañ ko gën a détaillé yaatal ko tous les mercredis insha allahu tabaraka wa taala wa axiru daawaana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh